assalamu alaikum mbokk internet ibakan tv ibakan tv tay dama len andil ki sama xarit la d'abord sama sama sama promotionnaire la won ñoo bokkon école bokk lepp tay yalla di def tay bama ñew tok sal sama dal set ci wa ibakan tv dama len andil gan bu mag gan bo xamne nak day da fay yëngu ci lamb day dimbali ay mbeur yu bari fi ci lamb mais amna leneen lu muy yëngatu loolu yëpp nañ ci ñëw gan bi mu ngi tuddu serigne moussa diop damay bàyyi mon frère mon ami nga présenté wu internet Iba Kane TV ak waa Sénégal ñi lay suivre au delà du Sénégal. asalaamaaleykum euh, Iba Kane mhm. de Iba TV maa ngi lay nuyu di la euh, sant di la sargal ci ñëw bi nga ma ñëw seet si. Mhm. di la ci gërëm di la sant. Mhm. Euh, boo ma seetsee yow xam nga suñu diggante. maa ngi yow yàgg na cosaan la. <laughs> Uh-huh. ndax koo xam ba ñu bokk école. <laughs> Uh-huh. <laughs> primaire tout tout tànk école primaire. Uh-huh. école Pikine 2 Daaru Pikine. ndeysaan loolu yàgg na. ak monsieur Diallo. ak monsieur Diallo waaw. dem si yàlla. dem si yàlla ak la directeur Souley Ba. ndeysaan waaw ñoom monsieur Mbuuba. ñoom ñëpp vraiment Girassi. ndeysaan monsieur Mbaye. monsieur Mbaye waaw ak suñu condition bi yëpp dañuy sant yàlla rek bu ñu la gisaatee dañuy kontaan. ndeysaan et eh, suñu sama mbokk pikine nga quand même tam ah. lolu lah. ma ngi yalla ya eh, mm-hmm. ba di la recevoir tay ci ci ci mission mais qui est serigne moussa diop ah serigne moussa diop mom man nañ xam nga wax sa bop nak yombul neexul waye nak est-ce que <laughs> tout rek man nañ est-ce que c'est ça sénégalais la bo xamni bu juddo pikine pikine talibou bes fi nan dominique hôpital mm-hmm. baye tala diop mm-hmm. Eh, Donc, Pikine jànge fa eh, école Pikine 2 jànge CS un Fadilou Diop mhm. bi nekk Pikine continuer jànge lycée Seydina Limamou Laye ba am bac mhm. eh, def université Gaston Berger faculté des sciences juridiques am maîtrise en droit après def yàlla dogal ñu jàll réussir concours école bi ñuy wax ENA fi ñu daan mhm. inspecteur des impôts et des domaines Hmm. depuis depuis presque une vingtaine d'années parce que depuis 2002 quand même. Hmm. la génn comme inspecteur des impôts la direction générale impôts et domaines. Hmm. Euh, fi mu toll nii conseiller technique ou directeur général impôts et domaines. d'accord euh, si le Pikine ce tour de feuille, lu bëri Serigne Moussa Diop Serigne quelle lan mooy Serigne Moussa Diop ak les Pikinois c'est quoi. boo ah, bon Serigne Moussa Diop ak les Pikinois moom. mooy koo xam ne rek Pikine la la juddoo comme ni ma wax sànq rek. Ah. juddoo Pikine sosoo Pikine. Mm-hmm. defee fa lépp nag. Mm-hmm. suñu lépp fa lañ ko defee ba léegi nii sax ñu ngi fay am ay relation mm-hmm. Euh, donc pikine amuñu lu dul pikine parce que du ku nekk fi nga dëkk ngay titaloo te man pikine laay titaloo pikine tali la pikinité voilà pikine tali bu bees pikinité deux cent pour cent pikine pikinité <laughs> donc fa lañ jàngee fa lañ juddoo fa lañ jàngee fa lañ yàlla dimbali te le sang pikinois te voilà le sang et pikinois sama famille nga fa ba léegi maa nga fa ba léegi te maa ngi jokk ak ñoom et puis nekk fa ci mouvement associatif bi mm-hmm. parce que lu mel ASC Dagoudane président pendant longtemps avant may mm-hmm. président sax mm-hmm. section culturelle secrétariat général. Mm-hmm. Euh, section supporter. ba dem président xam club def AS Pikine tamit ni ci dès le début adhéré woon euh, ci. ba sax gis soirée sargal bi ñu te loolu yëpp c'est parce que ñu ngi collaborer ñu rafetal suñu diggante. Mhm. Euh, ci également ci côté culturel association yi ñu ngi ciy jàpp ndax suñuy rakk lañ suñuy mhm. frère ak même ci làmb ji nga xam yow fa nga gën a féete. waaw foofu tam suñuy rakk ak suñuy jarbaat ñoo fa nekk. Mhm. ñu ngi leen di jàppale ci li ñu mën. macha allah dinañ dugg nag si wàllu làmb boobu ngay ne da ngay jàppale mbër na nga gisee la lutte à Pikine parce que jamono ji Pikine sooxee na. vous avez perdu les deux plus grands combats yi nga xam ne tey dañ leen ko doon mhm. waaw Iba nga nag fu sensible fu sensible fas fu metti saa su ma ni koy waxee sax. waaw su ma ko waxee sax gis nga émotion bi ma koy waxee. Ah. la sensible na trop parce que Pikine dafa nekk un foyer de la lutte. ñun ba ñuy gën a nekk xale boo nee làmb. Euh, boo nee Fass Pikine nga ciy teg. Fass fi nekkoon Pikine caare. Mhm. boobu ay parcelle sama waa parcelles yi nañ ma baal mais ay parcelles existé wul woon ci làmb. <laughs> waaye tamit ay existé wul woon. Ah. boo doon boo doon mbay géej ca ca ca Fass. Mhm. nga ciy teg ñoom ñoom Pape Diop mhm. ñoom ñoom numéro ak suñu grand yooyu. ak ñoom Papa Kan yi parce que boo Pikine ak caare yi benn la woon. dëgg ñooñu ñoo doon làmb. mais tey gis nañ évolution bi. bu ñu demee ba egg fii ak defet yi ñu tegaloon nii daf ñuy xaw a naqari ñun pikinois yi ah. parce que te des defet yoo xam c'était mënoon nañ ko éviter. Ah. parce que man li ma gëm mooy même di ngay dégg suñu xale yu mbëri naan pikinité deux cent pour cent ñoom xëy na initiative la boo xam ni ngi jàppalante seen biir. Mm. pour gën a sigil pikin. Mm. mais li tax defet yi bari nii man li ma jàpp mooy mbëri taxawu bi ñu war a am la amul. taxawu parce que taxawu waaw. bu ma nee taxawu jàppale bi parce que tey mbëru Pikine buy bëree war nañoo mën ñu sentir sur le plan institutionnel lu mel ni mairie bi lu mel ni certains leaders politiques parce que jàppale du joxe xaalis rek mais jàppale il faut mbër mi am gannaaw mu sentir ni Pikine yëpp jóg nañ te bu koy sentir du ci supporters yi rek mais ci leaders yi leaders yi ñëw di jàppale xale yi mm-hmm. seen préparation parce que li li ëmb làmb dafa bari mm-hmm. du entraînement bi rek du dem ci combat bi rek du mystique rek mais tout un environnement psychologique mooy accompagner mbër bi pour mu dem mën a am ndam. te loolu dañuy sentir mu xaw a sooxe. Mm. parce que 200 pour cent bi ñoom xale yi ñu ngi koy dox. mais ñun ñi nga xam ñooy ay leader nekk ci ci ci gox bi ñoo waroon gën a jóg gën leen a jàppale. Mm-hmm. ba ku ci am làmb mm-hmm. nga sentir population bi jóg na autorité yi jóg na ñëpp jóg nañ pour jàppale leen lool defe naa bu ñu ci gënoon taxaw. Mm-hmm. xëy na xëy na dina demee neneen. côté jàppale mais avant jàppale est-ce que gis nga solidarité union boo xam ne am na à Pikine si mbaru Pikine ya 200 pour cent boobu ñuy wax. waaw waaw 200 pour cent bi man jàpp naa ni xëy na. parfois entourage yi ñooy am incompréhension ak ñi wër mbëri mais mbëri ñoom seen bopp mhm. bëggante nañ seen biir te ku ci nekk yéene nga sa morom jàmm parce que gis nañ ku ci ne sa sa soo amee combat sa ñeneen ñi ñuy taxawee mhm. ku mel ni Eumeu gis nañ ci combat Boy Niang bi ni mu ñëw ba devant les caméras tax ah. wax ak moom jox mhm. ay conseils xëy na sentir nañ lu mel noonu tamit bi suñu rakk Ama di bëre mais mais li ma wax rek mooy jàppale boobu nga xam ne toutes les autorités képp ko képp koo xam ne Pikine am nga fa kàddu am nga fa baat nga jóg. Mm-hmm. di leen jàppale loolu daf ci am solo. Ama Baldé Boy Niang am ñu say contact wala am nga ay seen contact. waaw am naa am naa seen contact ñoom ñëpp. Uh-huh. waaw uh-huh. seen contact waaw. ban façon soutien nga leen di jàppale ñoom. suñu xam nga mbeur mom suñu yi bari na parfois du mëna baña nek sax ngay indi xaaliss di len jox wala mais soutien indirect ak soutien direct seeni entourage da fay am ño xamni dañ ci japp parfois sax mbeur mi mëna ko sax baña yek wala mu xamni diw moma jappalé ci li mais ci walu mystique dañ len di jappalé ak ci walu encadrement ak ci yenen ah dañ len ci jappalé te yoyep dafa am solo pikine nan lay defat ba tiat lamb ji ci loxom Euh, piquanteewaat làmb ji ci loxoom. parce que parcelle sànni na cravache. <laughs> parcelle sànni na cravache mais mais li yëpp benn circonstance la rek. Ah. mais ku xool même làmb ji boo gisee Modou Lo champion la. Ah. xale bu am jom la am la ci li muy def. Mm-hmm. mais boo gisee suñu defet yi tegaloo muy Ama muy Boy Niang. ak Eumeu Sène environ ak Eumeu Sène parce que Eumeu Sène la jëkk waaw ak sox ci Eumeu Sène la njëkkee ñaari défaite sox <laughs> booy ñaa ama booy ñaa mais mais maanaam environnement psychologique parce que lépp ci ci maayan bi la mm-hmm. environnement psychologique dafay day day indi défaite ci mbër parce que du ma du ma technicien bu xarañ lool ci mbër waaye mm-hmm. surtout ama ak booy ñaa yëpp man pour man dañoo bëree mm-hmm. euh, kaw bi mu Lo kaw woon Eumeu Sène ñoom loolu lañ bëree si seen xel ba xawa a moytu dóor yi trop ba loolu xëy na moo indi loolu du ma technicien nag damay wax sama xalaat rek mais pour man bu ñu bu ñu amoon beneen environnement psychologique ba ba bëri ak xeex ñëw ak xeex. seen defet du yombee noonu. parce que bu boobaa dañuy xeex ba pare door a bëre. mais dañoo sóor trop maanaam defet ëmb seen bi. Ah. loolu pour man psychologiquement moo moo moom moom loolu rek leen manqué. Ah. léegi léegi tax mu gàtt. benn mbër ñëw jeexal pikin yëpp loolu ça fait mal au cœur. waaw naqari sax en tant que pikinois. Euh, métti na métti na pikinois sànq bi may wax sax sa war nga sentir ni lii. métti hmm. nañu. dëgg la pikin ku fi juddoo yeewoo fa xam ne loolu musta xaw musta xew pikin. parce que pikin li ñu daan wax rek ku ñu jam naa ni hmm. ku ku daan mbëru pikin rek danañ la waajal te danañ la daan. Hmm. Modou nag xëy na yàlla dimbali na ko ba circonstances yi mu mu daan am ci victoire yi. mais euh, lu ñuy mën a noddanti la. lu ñuy mën a joyanti la. parce que pikin yaatu na bëri na ay champion sox sax mën na ñëwaat defaruwaat. Mm-hmm. am egg benn niveau bi ba ba loolu am Ama mm-hmm. Baldé xale la. Mm-hmm. am na làmbam mi des na ci kanamam am ëllëg dina am chance muy am ah, Boy Niang également xale la. làmbam mi ci kanamam ñoom ñëpp mën nañu redresser la barre ba ba. kon yow am da nga nekk da nga am optimisme ne roi des arènes di duggaat Pikine. absolument man loolu aw ma ci nattable. Mhm. roi des arènes ala kulli yàlla dana dana ñëwaat Pikine dana tegu ci loxo Ama. Mhm. dana tegu ci loxo Boy Niang. Mhm. nañ nañ nañ leen may tuuti temps et puis comme li ma wax jàppale leen gën leen encadré. bu boobaa dinañ gis. Euh, mais xanaa ça va passer à travers ton mouvement ou bien ton parti. bon mu munu ma ne mouvement ñu si mën a wax. mouvement bi li mu ci mën a wax man ah. dama euh, ànd ak samay xarit ay samay am di jàmm ak samay mbokk. Hmm. Euh, di jëmmal lu ñuy wax mouvement bi mu ngi tudd rassemblement national pour la patrie. rassemblement national pour la patrie rassemblement national pour la patrie. rassemblement boo ko déggee ci tubaab mooy dajaloo. dajaloo ñun ay ndaw lañ ay mag ay xale ay jigéen ñu dajaloo. Mm-hmm. bëgg euh, suñuy action ñu def ko euh, pour lentere du Sénégal parce que Sénégal moo ñu tax a jóg mais loo gis rek dafa am benn ngay wàññi boo gis day tàmbalee ci benn benn boobu mooy dañuy tàmbalee pikin Pikine Ouest parce que fa lañ dëkk fexe ba dajaloo. dajaloo bi nag li envergure nationale bi mooy bu ñu jógee Pikine dem ci tout le Sénégal pour lan pour la patrie patrie mooy askan wi yëpp ñu fexe ñun ku ci ne li nga mën ci xalaat li nga am ci xam-xam li nit am ci doole li nga am ci jot ñu dajale ko boole ko ngir liggéey Sénégal parce que dañu gis ni dëkk bi foofu la toll Sénégal manqué wuñu dara mm. ressource bu nekk am na fi yaa ngi dégg pétrole bi dégg gaz bi dégg ressources naturelles yu bari suuf a ngi fi am nañ soleil ndox a ngi fi war nañ mën a liggéey suñu dëkk hmm. bu ñu xoolee suñu rakk yi di jël gaal gi di dem wala ñu jël ni ko rek waa di dem daf ñuy naqari parce que xam nañ Sénégal am na li ñuy wax ressources humaines mooy nit ñi formation am na fi nit ñi am nañ xel am nañ xalaat ci nouvelle technologie tax na lu tubaab bi mënoon tey ngeen mën nañ ko hmm. donc bu ñu dajaloowee àndandoo bokk ndey bokk baay liggéey sénégal mën na jëm kanam te loolu nag dañ ko commencé sos ko pikin hmm. ñu ko sosee pikin nag liggéey ci hmm. mu jëm sénégal li tax ñu sos ko pikin war a jëm sénégal mooy pikin maanaam sénégal bu ndaw la rek pikin xeet yépp a ngi fi région yépp a ngi fi njaago bi séeréer bi joola bi tukkloor hmm. ñëpp ñëpp mboo da nga leen di retrouver pikin moo tax ñu bëgg a dajaloo loolu liggéey pour ni nga xam dafay mën a jëmale sénégal kanam la mooy sa ambition par rapport à ça ambition bi comme ni ma ko waxee rek wen dañuy wàññi benn jëm ca kaw. ambition bu njëkk bi. Mhm. mooy la mairie de Pikine. mairie de la ville de Pikine mairie de la ville de Pikine man. Serigne Serigne Diop moom nga Serigne Moussa Diop dans le cadre du rassemblement national pour la patrie. Mhm. mooy suñu pre sama première ambition. parce que lu tax Pikine dafay dëkk boo xam ne boo du point de vue de la population ak de l' importance citoyenne et électorale kenn mënul gagner Sénégal te gagné woo Pikine. ku gagné Sénégal yaay gagné Dakar région Dakar te ku gagné région Dakar yaay gagné Sénégal gis ngeen ko Ablaye Wade ba mu nekk ci opposition bi pour mu gagné Sénégal il a fallu mu gagné Pikine Macky Sall noonu élection bu fi am képp kuy falu rek foog nga gagné Pikine loolu mooy wane ni Pikine dafa nekk département bu stratégique bu am importance mais malheureusement Pikine boobu ba léegi dafa mel ni dañ koy fàtte ci activité action de développement yi maire bi ñu am actuellement sentiruñu ko en tout cas waa population Pikine sentiruñu ay action ak ku néew li fi am sax ci investissement souvent état mooy ñëw def ko parce que gis ngeen yi fi jot am président ci boppam mooy ñëw def ko mais mais te alors que Pikine en terme de budget si maire yi gën a am doole la bokk. parce que population Pikine yi marché yi fi nekk fiscalité bi fi nekk bu ñu ko exploité Pikine dafa war a nekk ci maire yi gën a am doole. te maire bi bu amee doole war naa mën a liggéey Pikine mais sentiruñu ko en terme de salubrité gis ngeen set syndicat gi ñu dëkk gis ngeen ni mu mel. Euh, ay armères yu baax sax gis ngeen armères à chaque fois inondation daf fay am. Mmh. même extension armères yi ba léegi nii ça pose problème. y a le chômage des jeunes. Mmh. y a y la drogue y la violence agression yi à chaque fois dafay am. donc bari na loo xam ne war nañ ko mën a joyanti suñu jëlee Pikine teg ko ci ay loxo. te ñun jàpp nañ ni maire bii fi nekk tey def na mi ngi ci deuxième mandat mais tey action de développement yu bari kenn du ko ci sentir boo xoolee làmb yi ñu doon wax sànq sax néew na làmb ji am nga gis fa maire bi mu toog gis nañ fi Ama bëri na ba daanu gis nañ fi Boy Niang ak yeneen ak mais pour nga gis le maire lui-même sax mu ñëw toog seetaan leen jàppale leen doo ko gis te loolu nag lañ bëgg mu deñ yaa ngi teg jalon yi lay tax nga nekk un jour maire de la ville. nga ah, maa ngi teg ay jalon jalon bu njëkk bi mooy li ma wax créé nañ rassemblement national pour la patrie. Mm-hmm. créé ko Pikine Pikine Ouest ensuite jëm Sénégal donc premier jalon bi mooy dajale te ñu ngi dajale. Mm-hmm. parce que li ma lay wax nii actuellement ndaw ñi mag ñi jigéen ñi ñu bari ñu ngi daw di adhéré ci parti. Mm-hmm. ñu ngi te pourtant sax defaguñu action de communication d'envergure. parce que pour le moment dañuy liggéey travail de terrain. Mhm. dajale yi ñu am ñu ngi créer ay cellules ci quartier yi buñ ca buñ ca tollee danañ ko fésal. Mhm. li tax fan yi sax ñu mooy li ñu nekk ci processus électoral bi ñuy bañ am chevauchement ak le dépôt des candidatures. Mhm. mais incha allah rabbi ci lu dul yàgg. dinañ ko dinañ def action de communication ba nit ñi xam lan mooy. RNP RNP mooy Rassemblement national pour la patrie. bi ñu bëgg a mais pour jëm Sénégal. ndax première ambition bi mooy la mairie de la ville de Pikine mais à terme incha allahu rabbi Sénégal lañ bëgg a jël incha allahu rabbi mais est-ce que Pikine tout Pikine ñu ngi sentir RMP waaw li ma la wax mooy actuellement defaguñu action de communication pour yuy viser le grand public mm. parce que li ñuy def dañ ko ni ko ñu koy waxee dañ ko bëgg a togg ba mu ñor ba mu ñor ñu door ko fësal mm. togg bi nag mooy actuellement mm. mettre nañ en place un bureau provisoire chaque week-end ñu ngi. installé ay cellules ñu ngi installé siège social mi ngi Pikine tali bu bees. Pikine tali bu bees dinañ leen jox adresse bi jox leen éléments yi. Mhm. nga mën ko diffuser mais pour le moment ñu ngi installé ay cellules ndànk-ndànk dans les quartiers. Mhm. bu ñu demee ba nombre de cellules bu ñu bëgg ba mu taxaw. Mhm. lu ñu ci war a fësal dinañ ko fësal incha allah. donc daal yow deux mille vingt huit wala deux mille yi. yàlla nañu yàlla may. Euh, fekke ak ah. tal ak ah. gudd fan. Mais au-delà des ambitions pour la ville de Pékin, nous avons des ambitions nationales. Parce que comme nous euh, suñu suñu njàng suñu parcours nous ñi ñu andal, mm. ñi nga xam corps de métier nous ñu ngi ci mm. ay góor jigéen mag ndaw mm. ñoo xam du sax Pikine rek parce que nous sommes tamit euh, sympathisants dans d'autres régions dans d'autres villes Nous sommes yàqin que euh, les prochaines élections 2029 di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen dégg RNP di ngeen dégg le leader de la du rassemblement national pour la patrie. Hmm, RNP wàllu export Pikin lan lan ngeen si xalaat. RNP mooy diagnostic bi ma def rek mooy Pikin eh, maanaam li ma wax sànq ni collectivité locale yi maire eh, bi defuñ seen liggéey en um, matière de politique sportive. tey hmm. buñ jëlee làmb ji ci nga xam ne yow ci ngay yëngu. waaw ah. doo dox ba gis équilibre boo xam ne am na sax fu muy defee entraînement souvent ci école yi la dem. te gisoon nañ fi temps yi inspecteur d' académie inspecteur di tere école yi. mbëri amuñu sax ay lieu d' entraînement. dañ ñu dem ci plage. te waaw di dem ci géej wala duniñ daan dem parfois sax doo fa fekk tudd parce que dañuy tibb eh. suuf si. léegi <laughs> tout est morcelé. Eh? <laughs> ah tout est morcelé. Eh. <laughs> foo gis lotissement la. foo gis même bu dul lotissement bu amee suuf. ay hmm. dunes yi boo xale yi daan yéeg a ko wàcc dunes yi tibb nañ ko. Hmm. jaay suuf si. et eh, boo demee plage également di ngeen gis parfois sax ay usines yu ñu fa installé wu ñu ñu dëkk Pikine ah. ñu daan dem géej pour mën a entraîner mais da ngay gis léegi yoon bi ngay jaar sa lépp ay usines lañ fa tabax tout est bouché donc xale yi amatuñu un cadre d'épanouissement mhm. bu dee terrain football également peut-être à part Alassane Djigo bi nga xam ni tane na ak le gazon synthétique te foofu ay location la dafay cher xale yi bayaal yu ñu amoon yëpp lotissé nañ ko wala ñu dagg ko ay terre ay waaw terrain jamono bi ngeen ñu def ay école ay affixe école sax baax na <laughs> waaye nag ah, ah. <laughs> terrain ginnaaw ñun ba ñu nekkee xale dañ daan ah. dégg terrain ginnaaw raay terrain jamono terrain daagu daan terrain yeewu terrain Guney Zinc Gazelle xam nga li may wax yëpp cosaan la mais mais mais malheureusement ñooñu équipe yee yëpp léegi amatuñ daanaka fu ñu entraîné mhm. ñun daagu daan bi nga xam ne man mooy sama équipe mhm. fi ñuy entraîné terrain bu ndaw la xale yi duñ fu mën a def dara parce que yow bu dee comme bu ñu dellu si si làmb ji bu dee écurie bu mag ñu ne la yow ci école lañ lay abal pour ngay sport mhm. te école bi balaa xale ya wàcc dix huit heures di donc yow li ngay li ngay contact mbëri temps de contact bi ñuy soxla duñ ko am parce que deux de temps guddi jot làmp amul loolu rek politique sportive war nañ ko xalaat foofu. moo tax ñun RNP bu ñu ñëwee danañ gën a espace bi ñu am Pikine parce que Pikine bari na ay espace yu ñu mën a exploiter yoo xam ne mairie bi moo liggéeyal bu ñu ko liggéeyoon. dinañ am ay espace sport ñoo xam ne bu au delà lamb ji football bi et dinañ mën sax basket bi handball bi parce que Pikinois c'est un sportif dans le sang gis nañ Pikine ay de grands basketteurs de grands handballeurs de grand footballeur. Mm-hmm. gis nañ sax andi sport handicapé yoo xam ne dañuy def sport. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mais mais tey wàllu làmb man laa lay gën a kii écrit lan la ñu mën a xaar si yéen bu boobaa. waaw ñun bu boobaa déjà la première chose bu ñuy def mooy dañuy bëgg a am répertorier toutes les écuries qui sont à Pikine di leen jox ay subventions comme il se doit parce que mënuñu accepter ñuy subventionner man sportif laa gëm bëgg naa sport mm. mais da ngay gis équipe nawetaan yi sport ñu leen di subventionné mm. AS Pikine ñu ngi def liggéey bu am solo mm. euh, mais maire bi da leen di subventionné chaque année ci loolu la ñuy départ ba mën a def seen championnat ASC yi dañu jot seen subvention ci maire yu ndaw yi muy maire d'arrondissement yi ak maire ville mais écurie de lutte yi parfois reconnaissance sax duñu am ci maire bi ñun dañu bëgg déjà loolu am reconnaissance répertorier toutes les écuries ensuite le budget mairie bi ñu inscrire des fonds pour subventionner la lutte subventionner toutes les équipes deuxième chose trouver au niveau de Pékin une assiette foncière qui nous xam de permettre ñu def fa ben salle de lutte écrite lutteurs nous écrits utiliser pour faire des entraînements. Hmm. ensuite jàppale leen ci ay équipement parce que nous ne xam na ni lutte na euh, entraînement physique mais soxla na salle de musculation hmm. également nous def une salle yoo xam dañ mère bi di ko subventionné mbëri di fa dem di fa mën a di fa mën a entraîné parce que di nga gis mbëru Pikine am xam dañuy dem fu sori pour trouver une salle de qualité même li ngay gis sax mbër am combat di dem ay France ak États-Unis pour préparer wu loolu yëpp mën na mën na dakk parce que ñun mën nañ installer ay salle yoo xam ni euh, état bi mooy jàppale maire yi ñu defar ay salle yoo xam ne xale duñ soxla dem feneen dinañ fa mën a entraîner def seen sport nu mu waree hmm. ensuite ku ci am combat maire bi ñëw taxaw sa gannaaw en tout cas man en tant que leader loolu laa fas yéene. Mm-hmm. jàppale la parce que jàppale lu xaalis rek. mais c'est psychologique. Mm-hmm. c'est un encadrement. et puis tamit ñuy ñuy gëstu suñuy rakk yi nga xam ne ñu ngi ci écurie yi nekkuñu ay ténor nit ñi xamuñu leen te ci loolu lañ yaakaar pour dund parce que tey mbër boo fi gis ku jóg muy Ama Baldé Boy Niang ma seen ku jóg rek am nga lu mat vingt xale wala lu ko ëpp yu la yu la yu la dar. boo gisee bu ñu dem ci lamb ji ni ñu leen di àndee sa yaram sax dafay daw parce que da nga ne ñii ñëpp te ñoom ñëpp ci loolu lañ yaakaar tey mbër boo ci gis presque day nekk day day ay cas sociaux lay yor parce que ñi koy wër ñëpp moo leen di yor moo leen di toppatoo parce que booy préparé combat lu mat vingt ponkal yu toll ni yow di ànd ak yow guddeeg bëccëg di lekk di naan di jox seen kër dépense loolu dafay metti yow ci tenor bi gis nañ leneen tamit même tenor yi nga gis ñoom amant pal de ñii ku ci ne dangay am ay cas sociaux yooyu gérer sa biir koñ tey jii xale yi li tax sax du ñu doo leen bari gis ci biir dëkk bi du caake ni dañuy jaay affaire vedette wala di nëbbatu mais ku ci génn rek da ngay gis ku la ne ah tey de yoruma dépense ordonnance bi mënuma koo fay donc dafay metti ci ñoom. ni mu mettee ci ñun en tant que leader noonu la mettee ci ñoom parce que ñoom tam ay leader lañ. donc dañ leen war a jàppale. Eh, seen xale yi nekk ci écrit yi nga xam amuñu comme chance am yenn combat yu mag yi maire bi pourquoi pas di leen organiser lay activité yoo xam ne nañ ci mën a suturlu loolu mooy loolu mooy gestion municipale kon daal parce que euh, gestion municipale gestion de proximité la mhm. te gestion de proximité da nga war a inclusif boole si ñëpp mhm. képp ku ci war a bokk nga boole ko ci pour élection 2024 il faut ma laal si de waaw waaw mën nañ ci laal. laal ci ñu cof ci tuuti. <laughs> vous êtes de l'opposition ou bien du proche du pouvoir. bon pour le moment comme ni ma la ko waxee rek ñun dañu nekk ci ci ci defar. Ah. ñu ngi defar suñuy mbir di RNP bi ñu ngi koy monter. Hmm. pour le moment mënuñu wax ne ñu ngi ci opposition wala ñu ngi ci pouvoir parce que processus bi am na ñu leen di seet si leen di seet. suuf waaw waaw lu ci ñàkk xam nga boo rek. Ah. <laughs> boo dee leader am ñu ah. yaakaar. foo am ñu lay seet si. Hmm. ah di di di di bëgg maanaam am am loo leen jàppale. mais hmm. ñun pour le moment nii dañu tollagul foofu. Hmm. dañu nekk ci defar. situation bi nag gis nga candidature yi ni mu demee actuellement conseil constitutionnel ñu ngi yi. Euh, RNP nag ñi ngi ñi ngi. taaxeerlu di xool nekk ay observateur mm-hmm. parce que foofu lañ toll tey nekk observateur di xaar l'évolution de la situation mm-hmm. parce que opposition wala pouvoir actuellement pour man en tant que leader amatul sens parce que le président de la république sortant def na déclaration bu bokkul ci élection yi te donc def na deux mandats mm-hmm. processus bi toll na désigner quelqu'un de son camp opposition tamit gis nga candidature yi ni mu mais loolu yëpp nay nekk rek njëriñu Sénégal ñu ngi ñaan daal yàlla mu dimbali. mais di nga joxe consigne de vote. Euh, consigne de vote non pour le moment du ma ko joxe ci élection yi du ma ko joxe. Hmm. parce que lu tax du ma ko joxe ñun dañu gëm l' esprit citoyen parce que dañu gëm ne ñun suñuy ñi ànd ak ñun ay citoyen lañ hmm. euh, te obédience yëpp ñu ngi si biir RNP RNP tey di nga fa gis waa Benno APR di mu fa gis ñu opposition di nga fa gis façon bu ne citoyen ñëpp. ñoo ñëw daw wut si ñu parce que xam nañ ñu ñun yàgg nañ def di social yàgg nañ jàppale askan wi yàgg nañ dund ak ñoom te mosuñ leen woo ci politique mais bu ñu demee ba tey décider lii donc mooy tax ñëpp ñëpp ñu ngi daw di ñu wutal si mais pour le moment comme dañ nekk ci processus boo xam ne euh, ñu ngi jëm ci élection yi jege na jege boo xam ne du ñu dugg ñu ci joxe consigne de vote wala diw la ñu àndal wala ànd ak diw. même bu ñu la seetsee même bu ñu seet seet dinañ waxtaan ak ñoom jox leen suñu xalaat. parce que actuellement mais gars yi ay heures du matin la ñuy dox de. waaw waaw xam nga tamit ku nekk ak sa bëgg-bëgg lu mu la jaral rek. Ah. lu mu la jaralee 2 heures du matin ñun ñun ku ñu ku ñu seet si ñu recevoir la. waaw ah. yaa ngi nii sama doomu nday seet si nga ma recevoir. ma mais c'est tout à fait normal un politicien de grande envergure un Karim wala un Amadou Ba. wala un un Khalifa Sall ñëw seet si la bokkul ak Iba Kane. waaw d' accord naa ci d' naa ci loolu ñooñu ñëpp dañuy dañuy wut réew mi. et am ci. am nañu mais bu boobaa laa wax lan mooy nekk sa rapport à ça. non bu boobaa c' est c' est rek mooy la constance pour le moment nii awma kenn ku ma ciy désigner wala ku ma ciy choisir pour le moment. Hmm. en attendant maintenant que processus bi gën a avancé ba ma xam. Hmm. parce que candidats yi nga fi tudd yëpp ñu ci bari en tout cas dégguñu programme wala offre boo xam ne. nit ñi xam nañ ko. Mm-hmm. ñun nag bu ñu dégloo seen i offre déglu seen programme ñun am nañ suñu programme am nañ suñu xalaat euh, ku ci gën a méngoog ñun danañ xool nu ñu mën a taxawee. mais yow en tant que Pikinois y a une Pikinoise. Mm-hmm. Euh, Anta Babacar Ngom bu nekk ci biir te. Mm-hmm. kooku bu boobaa comment tu vas faire te yow nee nga yow te c'est le sang Pikinois qui coule dans tes veines. waaw dëgg la c'est le sang pikinois Anta Babacar pikinois la su euh, papaam suñu grand la ah. maa ngi ciy profité sax di di jaale le grand Alassane Ngom el maestro du du ravin waaw ah. suñu grand la man personnellement particulièrement sama mag la sama grand la ah. amoon nañ ay relation bi ma nekk président ASC daal dama jàppale ci lu bari hmm. maa ngi koy maa ngi koy jaale tout la famille Ngom hmm. parce que ñoom famille bu yàgg Pikine lañ te seen papa self made man la liggéeykat la donc Anta li mu am nii be man bettuma trop parce que man xam naa ni ñoom ils sont très organisés et puis bon loolu moo leen may peut-être parrainage ñuy egg mais euh, pikinois la c'est le sang pikinois waa d'accord naa ci loolu mais tamit Sénégal moo soxla xam nga bu Sénégal soxlaa ñu ñëpp dañuy dañuy dañuy jubali wutali Sénégal yàlla Anta nag amuñu relation ni xaw ma ko personnellement. Mm-hmm. même papam sax xaw ma ko personnellement. Mm-hmm. Euh, grand Alassane laa gënoon a xam. Mm-hmm. mais ñu ngi koy ñaanal ci lu mu jublu ni gis nañ xale la mais am nay ambition elle a fait du terrain te je pense que lool c'est la vérité du terrain. parce que dafa dem nit ñi gis nañ ko mu dugg ci terrain bi ba am ay parrainage yàlla na ko pour la suite. yàlla na ko yàlla na ko yàlla na ko yàlla na ko yàlla na ko ko oui, professeur, Joko. Professeur c'est un ami, c'est même un, un condisciple, hein, parce que le hein. professeur Dardiaï, on a fait le lycée ensemble. Mm. On a fait le lycée ensemble, sur une nid là, sur une elle. moom it de Pekinois. donc loolu lay une richesse de Pikin. Hein. Pekin, li fa am ci talent ne mënu ko xam hein. li fa am ci intellectuel muy ay magistrat ay médecin un inspecteur des douanes Pekin, Pikine au Sénégal te dama cité ñooñu rek mais li fa am ci artiste gis nga ko hmm. bu ne arcos gis nga suñu suñu grand yu bari ñoom zoro mbay ñoom suñu grand lañ ah, ah. li ñu def ci art ah. mais ñëpp ràññe nañ ko sur le plan sportif tamit gis ngeen pikin fu mu toll hmm. donc pikin mooy ville boo xam ni oh, ñun doomu pikin ni waruñu ko caaxaane parce que sénégal dafa dafa war a mujj ci loxo ci loxo ay pikin waa yaakaar naa sax difficulté yi ñu am yëpp hmm. ak problème yëpp c' est parce que amaguñu un président pikinois quelqu'un de la banlieue euh, maanaam jànkonteel jafe-jafe banlieue xam lan mooy coono màgg ci mm-hmm. jàng ci yàlla dimbali ko jaar fu ne jaar walla jaar syndicat jaar fu ne parce que li ma lay dañ ko dund <laughs> teere meew <laughs> teere voilà <laughs> teere meew mbër ma lay tuddal ñëpp dañ daan dawandoo ci ci ci place bi di sport donc ñun dañ pi donc Pikinois dafay xam àdduna mm-hmm. xam am jaar-jaar mm-hmm. xam jafe-jafe xam xam social living comme ni américain di waxee parce que social living mooy dëkkandoo bi ñuy dëkk solidarité bi àndandoo bokk ndey bokk baay loolu Pikine loolu lañu xam. boo gisee ñu ci fu ñu dem rek ñu fa parce que Pikine lañ xam. jàppalante solidarité. te koo xam ne nag foofu nga soxe ko jóge foofu boo demee ba yàlla may la nga egg à un certain niveau. Mhm. ba jël réew mi euh, li may li tax may njort ni mën nañ am yaakaar mooy da ngay bari yërmande. Mhm. ku dëkk ci banlieue da ngay bari de parce que ci loolu lañu la yar te dañuy am ak taalibe parce que dañoo yar ci fonk fonk woyjur fonk kilifa am kilifteef te loolu buñ ko indee Sénégal ak njub yaakaar naa mën nañ transformer la Sénégal te dafa jot nag ñu transformer la Sénégal mm-hmm. parce que comme niñ koy waxee rek euh, le tout politique moo moo moo xaw a yàq Sénégal mais lañu jël wala jël Sénégal jox ko ay borom xam-xam borom xam-xam yu am yërmande ba pare am yéene si seen dëkk parce que politique loo rek la mooy nit koo xam ne am nga jaar-jaar am nga vision boo nga ne Sénégal fii laa ko jëmale bopp nga am yéene si Sénégal yërëm nit ñi ba pare nag gëm yàlla parce que boo jiitalee ngëm yàlla doo def loo war a def doo luubal doo fen doo sàcc doo wor te loo wax di ko def boo amee yërmande tam di nga yërëm jaam yi ba nga xam ne li ngay def day nekk au bénéfice des populations te loolu mooy suñu ambition ñun waa RNP. mais jërëjëf euh, sëñ Moussa Diop président RNP di la gërëm si li nga ubbil bunt yi waxtaanee wàllu làmb waxtaanee wàllu politique waxtaanee wàllu si sa parti euh, di la gërëm bu baax a baax di la ñaanal ambition yi nga am si Sénégal d'ici deux mille vingt neuf yàlla na ko yàlla concrétiser ambition yi nga am si ville de Pikine téye yàlla na ko yàlla defal mu nekk lu gën si yow euh, président looy tàggatu. ah jërëjëf Ibakaan kontaan naa trop ci ñëw bi nga ñëw invité ma si sa chaîne YouTube. Mhm. Euh, comme ni ma la rek ambition bi am mooy loolu rek. Mhm. Euh, dugguñ ci li ñu dugg nii pour wut alal wala wut daraja wala wut jëm yàlla dimbali nañu. Mhm. am nañ jaar jaar am nañ lu ñu suturlaa mais dañu jàpp ni rek boo dëggee ci dëkk bi il faut nga bokk jóg bokk ci ñu war a mën a defar dëkk bi. te bu dee am nga loo mën a apporter lu mu ndaw ndaw ndaw rek na nga ko apporter. te yàlla dimbali nañu ba sama jëmm ji ngay gis am na ñeneen ñu bare bare bare profil yu bari yoo xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci rassemblement national pour la patrie. te rassemblement national pour la patrie li ma ko wax rek Pikine dafay nekk genre ville miniature pionnière. mooy incubation bi lépp lu ñu namm ci Sénégal fa lañ ko bëgg a tàmbalee. sos ko fa liggéey ko fa ba nit ñi gis ko. Mm-hmm. ñu ñu wasaare ko Sénégal te donc les prochaines élections locales.

di ko jox rendez-vous nag lu yàgg lool parce que xam naa d'ici février fekk carte gi leer il faut nag il faut ma parce que damay topp cas consigne de vote boobu fan la jëm pouvoir lay dem wala opposition dinañ ci xam dara dinañ fi revenir mois de février bu élection yi commencé. incha allah jërëjëf jërëjëf président